asalaamaaleykum mbokk internet Leewtoo TV ginnaaw ba ma leen nuyoo di am contentement ak mbégte jano ak yéen chaque jour ngir leen di gën a fës ci boobu xibaar yi ci noonu nag damay jël nuyoo bi rek jiital ci borom kër di Pape Thialis Faye di ko ñaanal jàmm ju bare bare ak ci revue bi rek daal di ñëw ak yéen ci li gën a fës ci boobu xibaar yi mbay nuyu naa la jërëjëf Ndeye Mbacke fay naa la wante maa ngi nuyoo bu baax mbokk internet yépp ñi ñuy topp ci Leewtoo TV di leen ñaanal jàmm ak salaam di wax ne nag tey xaw nanoo wét Assane Waalo borom Linguère tey nekku fi wante ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax fa mu nekk suñu borom defal ko jàmm ak salaam. muy noonu borom Linguère di leen fàttali ba léegi. revue bi huile j'adore moo leen koy may chaque jour fii ci Leewtoo TV mbay looy may nit ñi tey ci revue bi. waaw xanaa di leen wax rek ne huile moom kenn dootu ko présenté ci réew mi ndax mooy huile numéro un jigéen ñi. ak ñi nga xamante ne bii dañoo bëgg heure bu ñu duggee seen waañ ba génn bu ñu taajee rek ñëpp consommé li ñu togg huile j'adore la ñu jàppanteel mu ngi noonu jàppaleen ko ba mu dëgëran ah, samedi 20 mars 2021 journal suñu la moom xëtee ci xëtam mu njëkk décidé à tabasser Lac de Guiers 2 pour le 4 avril Eumeu Sène s'intensifie en séance de boxe mu mel ni que Eumeu daa pare pour jàpp jàpp euh, jànkoon dëkk nga xam te ni mooy Lac de Guiers Lac de Guiers jour combat ba mbay Babacar waaw loolu la wax ci journal bi est-ce que dana yomb wala du yomb loolu nag mi ngi suñu kanam ñu yónni yàgg Eumeu seen li mu xam ne mooy dafa bëgg jàppe kii di Lac de dóor ko ba mu tëdd loolee waral ma nga fële je ma nga ci ay entraînement ya nga xamante ne bii entraînement yu metti la wante ay entraînement de boxe la ya nga xamante ne bii lépp li ko waral rek mooy mën a jàkkaarloo kii di Lac de bu arbitre soufflé ba génn seen diggante mu duma ko duma ya nga xamante ne bii kenn du ko te wante yemul foofu dafa jël kii di Jibril Kanji mi nga xamante ne bii moo doon coaché euh, Euh, Lac de Guiers mu jël ko léegi moo koy coacher ci boxe xanaa ku dégg ku dégg loolu war a xam ne ëmb mii caaxaanul ci combat bi wante yemu euh, ba léegi ci journal bi kii di Ousmane Diouf nekk fële ca RDV mi ngi ñuy xamal ne euh, Lac de Guiers 2 nag mooy favori ci combat bi bi ñu ko laajee lu tax mu ne Lac de moo gën a nekk xele te li ko war ci combat bi mooy su ñëwee rek dafa war a andi xeex ngir mën a génn ci combat bi ndax kii di kii di Eumeu Sène dafa dafa dafa dafa dafa dafa taxaw ba pare dafa mën bëre simple. Mbaye Babacar gisoo benn indifférence foofu kii di la dagg de dem jëli ki nga xam te ne mooy Père Ali moom mi doon entraîné Eumeu Sène ci bu yàggul Eumeu seen dem jël ki nga xam te ne mooy Djibril Kandji moom mi doon entraîné Eumeu la dagg ci bu yàggul. mu mel ni ay ay règlement de compte ay réglement de compte la kii dafa jëli Djibril Kandji kii jëli coach Eumeu Sène mu mel ni ñaari coach yi ku ci nekk. Mm. combat bi am na enjeu bu rëy ci yow. ci yow bien sûr mu ngi noonu nag MMA lañ jëm combat contre si kii sa samedi à Pologne Bombardier à la so de l'homme plus for au monde Mbaye Babacar Bombardier ci la mu wax ci journal suñu laam nee na je suis plus complète que lui. waaw tey la nar a amee wax na dëgg dafa gëm boppam. dafa gëm boppam nee na ki may ki may ki may jàkkaar lool ki ma war a bëreel. Euh, maa ko gën a complet maa ko gën a mët ci côté yépp nag maa ko dàq dóor maa ko dàq bëre te su ma ko jàppee duma ko may dara loolu war a am tey ji incha allah bu ci yàlla àndee foofu ca Pologne ci benn dëkk bu ñuy wax Lodz incha allah bu 19h jotee di nekk heure de Dakar waaye 20 nekk heure de Pologne ñu mën a xaar nag combat ba nga xamante ne bii combat bu metti la ndax ñoom ñaar ni ñu koy waxee dañu tolloo taxawaay wante tamit seen seen doole dafa sorantewul euh, Bombardier li mu xamle moom nee na pare na ci côté yépp te bu arbitre soufflé du nekk ka nga xamante ne bii day xaar li mu war a def rek lay def ngir mën a am ndam ci combat boobu di fàttale fàttali ne Bombardier ci ñaari victoire la jóge euh, il faut mu amaat beneen ndam nag ngir mën a tegale ñetti victoire ci lii di MMA bi. daal di ci gerte mooy mooy UFC e yi gën a mag di ko ci ñaanal jàmm moom doomu sénégalais boobu. sa ah. Safi Dieng Ousmane Gandigal le 10 avril Sidi Diakhaté ouvre la ouvre sa saison à Thiès mu mel ni moom Thiès la nar a ubbi Mbaye Babacar. waaw Thiès kaay la dëkk benn dëkk ñaari gaar am benn aéroport ma nga fële ca jas kooku mooy Sidi Diakhaté di promoteur bi nga xamante ne bii mbër ya nekk Thiès xam nañu ko bu baax ndax mbër yu nekk Thiès ñi ci ëpp di fa bëre di Diakhaté moom moo leen di tëgg mu mel ni nag ma ngay ubbi saison foofu fa mu dëkk wax na dëgg euh, muy dox ci diggante kii di Safi ak kii di Ousmane Gandigal nar nekk combat bu metti nag ndax ñoom ñaar ku ci nekk sampion nga te ku ci nekk waa Thiès kaay euh, ñi ngi lay xaar mu mel ni amateurs yi Thiès yi tamit dañoo namoon làmb te it incha allah Sidi Diakhaté andi na leen combat bu rëy boobu incha war a am le 10 avril bu ci yàlla àndee foofu ca Thiès kaay. incha allah lutte simple Jax ouvre la sa ouvre la balle ce dimanche la ca mise ba nag mooy 2 millions 500 mbay Babacar. Sidi Diakhaté gannaaw moom bëre dóor la taamu Jax moom li mu taamu mooy bëre simple. mooy bëre bi nga xamante ne bii ci ngay gisee lii di bëre pire ndax. ku gën a xereñ sa morom rek yaay daan loolu mooy bëre simple Jax nag ma nga jëm fële ca terrain gaal gi incha allah bu ci yàlla àndee dimanche suba bi la mu tegal mbër yi nag moom mooy 2 euh, millions 500 ci ñaari catégorie am na poids lourd wante am na poids léger mu nar a nekk euh, gala de lutte ba nga xamante ne bii ñu ngi ciy xaar ay sampion yu bëree bëri ya nga xamante ne bii macha allah ñoom tamit gëj nañ leen a gis ci làmb ji loolu di amee fële ci terrain gaal gi ñiy assuré li animation bi nag muy Mbayang Loum nga xamante ne bii macha allah moom namoon na terrain gaal gi ak kii di baabu Ngom ak kii di Momo Ngom. mu nga noonu nag nar a am rek incha allah waa Leewtoo TV danañ fa dem Mbaye Babacar di nga dem couvrir événement boobu formation en garde rapprochée quoi Karbala recevoir le diplôme tey jii nii waaw ki initié loolu moom mooy euh, Ahmadou bàmba Mbuub moom mooy président association FIS euh, ànd ci ak 3FPT ñoom ñooy forme ñi nga xamante ne bii ñoom ñooy mbër yi euh, tey jii nag lu tollook ñaar fukki mbër war a jot li nga xamante ne bii moom mooy seen ay diplôme nga xamante ne bii diplôme yooyu fu ñu ko wanee fu nekk rek ñoo xam ne ñii am nan xereñteef ci wàllu garde rapproché euh, formation formation garde rapproché boobu nag ñi ci bokkoon ñu mën cee jàpp ki nga xamante ne bii moom moo di Kara euh, Dollé wante mën nañ cee jàpp ki nga xamante ne bii moom mooy euh, Brice de Mer wante mën nañ cee jàpp ki nga xam ne moom mooy Birahim Junior ak Mamor ak ki nga xamante ne bii mooy yeneen mbër yu bëri yi nga xamante ne bii bokk nañ ci euh, formation boobu nga xam ne tey jii incha allah daanu leen jox seen ay diplôme euh, ki ko ki leen koy jox nag di Ahmadou Bamba Mbuub moom ay président FILS. ma nga noonu na loolu nekk initiative bu rafet a rafet li nga xam ne mooy axlu làmb. Ah, c'est ndax ni ñu koy waxee mbër da ngaa war a am da war a nekk mbër ba pare am métier. bu làmb amul nga dem ci leneen jàpp ci leneen. am na solo mu ngi noonu. Ses potentiels adversaires aux États-Unis Sa Thiès pose un lapin à Garga Mbossé et à Yékini Junior ginnaaw ba ñaan ñu demee fi nga xam ne mooy États-Unis pour mieux se préparer Sa Thiès daal leen juy dem bëri ki nga xam ne nii mooy war a bëri ki nga xam te ne nii mooy Moussa Ndoye Baye Babacar. dëgg la Ndeye Mbacke noonu nga ko waxee noonu la mel ni Sa Thiès dafa njuuy ay adversaire am ñu bëri dañu jàppoon ne Sa ñi mu war a bëreel dëgg dëgg dëgg mooy Yékini Junior. wala Garga ba promoteurs yi ñu ngi ci doon def ay démarches bu xawoon ci sori wante finalement kan la mujj jël Moussa yi mu mel ni dafa njuuy ñaari adversaire am yële nga xamante ne bii ñu ngi doon waajal Sa Thiès ba tax ñu dem États-Unis doon préparé ji wante mu euh, Sa Thiès moom dafa mel ni euh, Moussa ndooy la mujjee jël xam naa nag loolu problème mu problème mu prix lay doon ci diggante ci diggante ci diggante mbër yi ak promoteurs yi wante daal li ñu mën a jàpp mooy Sa Thiès fi mu toll nii ki muy préparé moom mooy Moussa Ndoye mi nga xamante ne bii moom lañ ko jox avance sam wante yëkk ni Junior ak euh, Garga Mbossé ña ngi États-Unis ba léegi di xaarandi mu ngi noonu Lac Rose et Pape Ndoye toujours sans adversaire ñaari mbëri yoon gëj nañ léegi ci làmb ji ba léegi nii amagul adversaire la ca noonu face ki ci mel ni Gris Bordeaux Gris 2 Forza ak général bu fas am nañ combat te ñan gisul na ba léegi mooy Lac Rose nga xamante ne mooy Pape waaw ñaari frères yooyu nga xamante ne bii ba léegi euh, amaguñu combat gëj nañ leen a gis tamit euh, ñu ñu ñu ñu bëri euh, wante ñoom bokkuñu ak ki nga xamante ne bii moo di Gris 2 Forza général bu Fass ak ki nga xamante ne bii moo di. Serigne Ndiaye 2 Serigne Ndiaye 2 ñoom am nañ ay combat ba ñoom ñu ngi préparé seen ay adversaire wante li ñu mën a jàpp mooy lagrose ak ki euh, frère am bi nga xamante ne moom mooy Pandoy ba léegi amaguñu com amaguñu combat mais lagrose moom nee na mi ngi xaar adversaire am ngir mën a rectifier wu ci jafe-jafe yi nga xamante ni bii ci la nekk. mën a dellusiwaat da gën nañ ko gis trop moom doomu Fass boobu noonu ginnaaw ba mu amee li nga xamante ne mooy ay gaañu gaañu. lu Nicolai va-t-il kañuy xaar di ko déglu ba léegi waxagul mooy lu Nicolai promoteur boobu ca Mbour géej Khadim Gadiaga nee na làmb ji bi a dox ci diggante ki nga xam te a di mooy lu Nicolai Mbaye Babacar Khadim Gadiaga wax na dëgg avance bu yàgg ci mbër dafa metti ba tax na ñu ne Luc Nicolai war naa jóge ci tekkaaral ji mu nekk nag leeral Euh, mbokki amateur yi rawatina ñaari mbër yi nga xamante ne bii mooy Ama Baldé ak Modou di combat boobu nga xamante ne moo ko taxawal di combat royal nag. combat ba nga xam ne amateurs yi bëree bëree yi ñu ngi koy bàyyi xel ba pare di ko xaar di dox ci diggante Ama Baldé ak Modou li ñu wax mooy euh, Luc Nicolaï ñu ngi koy xaar ngir mu jóge ci tekkaaral ji mu nekk Khadim ga fan yee passé gisoon nañ ko mu génn ne Luc Nicolaï mi ngi ci dernier réglage yi ngir mën a joxe datu combat bi mais boobu ba léegi dégg guñu ko wante Khadim Gadiaga li mu wax ci combat bi comme li nga ko waxee sànq mooy euh, lig lig war naa def kut au kut ba combat bi incha allah ñu taxawal ko ren ji bu ci yàlla andee mu ngi noonu loolu la ñëpp nam ndax dañoo bëgg xam euh, fu wànneenti di mujjee gëtam mm-hmm. mu ngi noonu ca Kona lañ jëm Kona ak Satak à Gris ginnaaw ba Onde le génnee démb daal di kaas yi nga xam te euh, ko ci nga xam te ne mooy Gris Bordeaux président des lutteurs Kona tey dafa xëy attaque nga xam te ne mooy Gris Bordeaux mu gis ca Gris Bordeaux mooy il défend que ses intérêts personnels maanaam boppam la fi nekkal mm-hmm. te association boobu ko taxawalee fu muy dem rek VIP lay yóbbaale xoolul bi nga xam ne mooy mbëri ndaw yi Euh, Kona loolu la yëkkati ci biir journal bi moom daal nee na association bi bu njëkk sax sawaroon na ci mais dama dafa dem ba gis ne Gris mii boppam rek la fi nekkal ak VIP yi ndax fépp fu muy dem wala lépp lu muy wax VIP yi lay waxal VIP yi lay àndal ba tax na euh, ko ko koonaa de koonaa nee na wax dëgg yàlla euh, lii di association bi gisatu ci boppam te Gris Bordeaux mii wax dëgg yàlla fu muy taxawati di wax na wax la nga xamante ne bii boppam kese la engagé wante bu mu waxate ci kàddu mbër yi mu ngi noonu <coughs> Gaston Meng raf <coughs> Gaston Meng raf la mise kooku di suñu papa per Gaston Meng la Don King de l'arène sénégalaise ginnaaw ba mu toogee ay at nekkul ci làmb mu ñëwaat dafa ñëw ak doole Mbaye Babacar. Uh-huh. ñëw ak ay mise yu baree bari bari lam ci taxawal mooy combat bi nga xam te ni mooy dox ci diggante Lac de Guiers Eumeu Sène uh-huh. taxawal ki xam te ni mooy Sa Thiès euh, Moussa Ndoye barki Dembo Ndiaye taxawal combat bi nga xam te ni mooy dox ci diggante Diène Kaïré ak Mourou Anta Forza ak Pakala ñu ne Père Gaston Mbengue rafle la mise loolu la olof di wax xuuf paa Père Gaston dafa xuuf paa xam nga taana booy buñ doon paa lin teg ci lin teg ci paa bi yëpp boo jëlee sa égaat jambul yëpp jam égaat yëpp loolu mooy xuuf paa mais Père Gaston li mu def mooy dafa xuuf paa parce que booy xool combat yi gën a neex ci saison bi ren moom moo ko taxawal loolu nag day wone ne moo li ñu koy waxee moom mooy la Don mu noonu tur tur wuyu na borom macha allah combat yooyu nga fi lim yépp moo ko taxawal di ay combat yu neex ya nga xamante ne bii amateurs yi ñu ngi koy xaar man bi ma ci gën a neex rek mooy Modou Modou Anta Diène Kaïré di combat jànq ba nga xamante ne bii macha allah amateurs yi koy bàyyi xel te daañu gis combat bu rëy daañu gis combat bu neex ma nga noonu Baye Babacar la kontaanee bu baax loolu moo nekkoon li gën a fas si boobu xibaar yi lan ngay tàggatoowee xanaa jaajëfal ñëpp di leen dig daje incha allah bu ci yàlla àndee di wax Assane nag ñu lay ziar mm-hmm. di la ñaanal jàmm Assane bu Yacine Fall ñu ngi lay ziar di la ñaanal jàmm di la wax ne nam nan la trop di daje incha allah suba ak jàmm jaajëf Mansour Fall suñu caméraman bi nga xamante ne bii macha allah dama leen koy wax chaque jour mooy le benjamin des caméraman lu ma lu mu rek man yóbbu leen ma ko ci poubelle ba bëgguma mi ngi noonu dig daje suba ak jàmm jaajëf. mu nga noonu leen bu baax na dem contentement ak mbégte naa comme toujours di jënd ak yéen Yacine Fall maa ngi lay bëggee bu baax Ousmane ziar naa la. Kebe suñu gan gi di la ñaanal euh, dina naan sax dalal ak jàmm Cheikh ah. Ahmed Tidiane Kebe. Kebe Kebe dalal ak jàmm dalal ak jàmm Kebe Jaxara <laughs> mu ngi noonu. bégee bro ñu ngi lay ziar amal jàmm. Mansour ci caméra bi xale bu baax bu yor bu maa ngi lay bu baax a baax di jaajëfal équipe technique bi yëpp ah Aïda Matou Fama. Euh, mistara yaa mamandee la borom léegi neex di ko jaajëfal bu baax di leen jaajëfal yéen ñi nga xam ne dañuy topp ci Leewtoo TV amuñu seen fayan leen jaajëfal bu baax a baax a baax a baax di leen ñaanal jàmm ak salaam bon week-end à lundi incha allah